mu mel ni nag war nañu góor góorgóorluwaat ci jikko ndax jikko yi yàqu na te jikko su yàqoo ci nit booba xam ni nit yàqu na baatu jikko soo ko doon jël tey xam na mooy lan olof la ji loo ji mu sax léegi nag mag ñi dañ daan fekk koo xamante ni jikkoom rafet na ñu jël seen doom jox ko pour mu jël jikko yooyu jikko ci moom bokk na ci Cheikh Alhaaji Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu maam Cheikh Seydil Haaji Malick Riddal Malick daf ko jox sëriñ Aadi Touré moo ko jàngal yar ko ni ko sëñ Aadi mu ni ko naa mu ni ko ñett yi laa soxla ci Abdul Aziz mu ni ko ban ak ban mu ni ko xam-xam teggin mën-mën su ñett amul na ñaari am su ñaari amul na benn bi am xam-xam ni mu toll su xam-xam mënula am teggin mënula am mën-mën amula am na xam-xam am ak teggin su xam-xam mënula am ak teggin nan bàyyi xam-xam fële te jël yar ak teggin yëguloon ni Sénégal lu fi waay jaay mu lam muy xam-xam ak lu mën a doon waaye amul lu ko lay taay moo yar ak teggin yar teggin fu mu amul loo yor dana wadd ka yaru ami teggin jël ko lu tax mu ni ko jëlal yar teggin mooy aljanna dafa neex waaye aljanna li ko dàq mooy gis kanamu yàlla te kanamu yàlla li koy maye mooy yar ak teggin Mhm. moo tax Seydi Hadji Malick da amal ñaar ñu ne ko am ah, mu ni utal mag mu yaru ak kat mag mu mag mu yiw ak mag mu yiwati ñu ne ko Malick nu nuy utee mag mu yiwati mu ni teral ko soo ko teralee bu dee def ak yiwa dem teggi ñu ne ko waaw ñu ni ut mag mu yiw mu ni mag mu yiw soo ko terale yiwam ja mu jox la ko bari na ku fi tey am tara nga teral mag moo tax nga am ko benn ci góor gi ndaama faal mi ku bëggoon sëñ Fallou la benn machine la yoroon sëñ Falloo ko ñaanal def ko jox yar ak teggin gis nga ko ba fi jógee kum fi bàyyi ay doomam yar ak teggin ñaan day topp nit ba ci bàmme suuf bu sutantee dañ koo jal xale yi nag na bari rek barkeel moom xooluñu ci dara na bari mën naa bari mais coono la indi bari le barkeel licence yu dul jeex sans sëriñ Sénégal fi ñu toll tey lu ñuy wax ay milliards kenn waxatul million waa naka ngay amee ay milliards ba pare di sonn njaay mën naa ne kon barke la soo amee barke doo sonn loo bëgg yàlla defal la soo amee téeméer day mel ni junni dafa barkeel jigéen buy sëy na ut barke ci borom këram dama ne eh yow mi nga xamante ni yaa ànd sa sëriñ utal barke yow doom utal barke ci sa yaay sa baay ak sa jiko yi yàqu suñ demé ba Sénégal doomu adama yi yamak mala ta lutax tax ñu teqale len ba yamu len moy xel doomu adama li mu wuteeg mala moy xel xel momu nak mom la la yàlla jox mo la utu ci suñu borom yëguloo ni xel mo liggé aduna nit léppam xel soo amul xel kenn considérutul lislaam bana la bul julli bul woor kenn considère xel nag mooy nit yàlla bu duma tey du duma ci alquran ama du la duma du la duma ci waxi rasulillah xam nga fu mu lay duma sa xel sa xel sëñ bi ku taal taal ba mu tàkk jël sa loxo ni la dugal ci di nga ci doko dugal li la ko wax sa xel motax kep ku top nit mu lay dugal ci ay toxi doona ba ëllëg yàlla ne dama lay duma parce que am nga xel wax na ko fii avant ñuy dem istabara alladhina tubiu من الذين اتبعوا wa العذاب وتقطع بهم اسباب وقال الذين wa لو ان لنا كره فنتبرا منه كما fa منا kadalika yurihum llahu alayhim hasrat wa ma hum bi xaarijina min annaar ku ko wax yàlla nit dina ñëw alaxira ka nga yaakaar ñëw ndeke moom nga doon topp ndeke la ko doon toppee du dara du yàlla yàlla posé question ku jëkk ki nga toppoon ni ko kii lan la la toppe woon yow boobaa foofu da ngay wax gis nga yowmal xiyaam moo dangereux yowmal qiyaam fa la lépp am gàcca amul fii gàcca yowmal qiyaam la am rus yowmal qiyaam la am parce que fii boo amee gàcca am na ñu ko yëg ak ñu ko dul yëg yowmal qiyaam nag ñëpp a ko yëg ñi juddoog ñi juddul yëpp a yëg sa gàcc moo tax lu jara bàyyi xel la jikko nag moo waral lépp yonent bi ni bokk na ci fami aljanna ñetti ku ko am bokk nga ci ñu ni ko ya rasulallah ban ak ban ak ban mu ni mooy ku la tooñ nga jéggal bul tooñ mbokk yi hadisul xudsi yi la suñu borom ne bu ñu tooñante dama araamal sama bopp tooñ ay waay waay araamal leen ko seen bopp fala tuzalimu bu leen tooñante tooñ moo ñu indil maanaam gàkk-gàkk àdduna ak ku tardé fii ak fële tooñ moo la ko waral moo tax nañuy jéggalante suñ diggante ñu ni ko ak ban mu ni mooy nit war laa jox mu wér li dalaa war a jox mu xañ la yaw nga war koo jox jox ko ñu ni ko ak ban mu ni nit ñaawal jëm ci yow nga rafetal jëm ci moom ñett ku ko am bokk nga ci famille aljana silman qataaka waxsin ila man asaaka ilayk yàlla lu mu tagge rasulillah jikko ju rafet alaaji ku la gën mi ci jikko bu la nit okkee nga wokk ko wala mbaam bu la wéqee nga wéq ko lu ñuy wax yaag mooma aha Cheikh Aji Mansour bi ñu tuddee borom daara ji soo ko masaana wax lu ko naqari walla lu ñaaw xam nga nu muy def danaa danaan jàkk xool ba seen ñeenti bët yi daj mu wan la ni li nga def rafetul bàyyi la foofu arab dañu wala tëj si insaani ala suyi fiil say gis si maa fii wa maa wa faylu nit bu la defee lu ñaaw bul fay bàyyi koog lim la def looloo koy rey bu ko def dara moo tax nga dem yonent bi moom la gën a ñëpp bi ko yàllay tagg dani ko taggew mala la famille Moustapha taggew alal du daraja limala takke moy jikko ju rafet wa innaka la ala xuluqin azim bu fekante ni eh jikko montagne la yang ci ñu njóbbaxtaan lu alaaji Maalik wax wa hada ma hada lakin la yumasalu min tawaduin wa xusui lqalbi warata min kulli wasf شعيل قلبي وارتمي ala tibdilin rajaul baraya kan la yawma muzami gendu mawdo ma mawdo ne min kuli wasfin bépp melokaan woo jël ba yaakaar ni moom moo gën booba Moustapha la bu dee yére original Moustapha nit Moustapha la meew مصطفى موتا لي نيت دي راوي نيت بوي دم تي وانا دوكو سومي موي جيكو جو رافيت ماماس نغ لاي دوي ديلا واتي سا واتي واتي دي نوي سونو استاذ جوب نغ لاي واتي سا واتي واتي امري نغ لاي نوي فتبارك الله افعل تفديل مو ام صلاه yàlla moo exame Moustapha ci jikko mu atme mu dugal xoola moom la njëkk a exame jël ko dugal ko ci groupe bi wax ak bi mu njëkk leen moom rasulillah mooma lu ñu am tey mooma adduna ak alaxira rasulillah maam as yàlla ne jaamu leen ma waaye bu ngeen di roy jaar leen ci rasulillahi laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarjullaha wal yawmal axir jikko yi yàqu na saar na de xoolal dafa am jikko yoo xamante ni dafa am solo ci nit la ca gën mooy kersa ñu tudde ko alxaya kersa amatul ndax kersa ak gëm yàlla boole nañu leen ñoom ñaar su fa kersa nekkatul gëm yàlla nekkatu fa te ñett su amul ci nit amut amatul lislaam amatul diine ñett yi ñoo tegaloo bangal sa baaram al imaan ak ban lislaam ihsaan ñooy toppaloo soo gëmee yàlla ba pare pratiquer mooy lislaam so pratiquer rafetalal bul ñaawal léeg-léeg ma misaal ko kër soo ko tabaxee tabax ko ba dale ko mu nag mën nga raax sax ba buntu yi waaye waaye ak volontaire yi mën nañ caa dëkk mën nañ caa dëkk wala ko ku ga boo yëree da nga naan ah kër gi de pareegul lu tax peinturuñu lu carreloñu meuble yi lu tax làmp yi ñëwul moo tax moo loolooy ihsaan suñu borom ni dee leen wax lu rafet di ko jëf waqulu li naasi xusnan yëguloo ni mag ñi li ñu rawe mooy seen nokki sax yàlla la seen dox yàlla la seen xool yàlla la suñuy lekk ci ndab buñ tibbee nga mel ni yonent bi moo tibb ñetti baaraam am na lu ñuy wax seen lépp yàlla yëguloo ni sa lépp bu nekkee yàlla man nga fee yàgg waaw ku bëgg fi yàgg del def lu baax waaw mbaax la yàlla bëgg looloo tax mag ñi même bu ñuy faatu yàlla wan leen bis bi ñuy dem at mi weer wi bis bi heure moo tax ngay dégg ñu naan sam papa day jaaxal na ma lan la la jaaxale moom de bi muy dem daa mel ni dafa xam ni dadoon doon ñu ne waa mu ni démb dafa watu ñuy wax mu mu dagg ay weyam waaw yónni ma ma jëndal ko perkaal wala yónni ma ma jëndal ko yére yu rafet mu sol mu mu yónni ma ma jëndal ko parfum sam papa daal bi ñeewoo dem na ci duus bi sama yaay defal na ko ndekki bi mu paree daal ni mu tàllaloo ci laal bi dem na waaw xam na yàlla day wan laa tudrikul absaar woowa yudrikul absaar woowa latiful xabir mhm. suñu borom képp ku baax moo la ko gën a bëgg jurul doom kenn juru ko mais li muy daw suñu borom mooy suñu diggante yi ñàkk a rafetal mooy àq yi ñu ame yàlla jurul kenn jurul kenn kenn juru ko ñun dañu am doom am soxna mais amal nañ leen àq yàlla ne bugguma amel kenn àq moo tax juruma awma soxna kon naka lañuy ñuy amante suñu diggante ak jàkkaarloog nit di ko wax baat yu ñaaw jàkkaarlook nit di ko dëkkal fu mu dëkkal jàkkaarlook nit di ko waxal loo xamante ni du dëkk walla nga koy tuumaal ba fa mu dëkkoon mu toxu anamu sëñ bi doy na waar ba pare ni jullit nga nun daal liñ def jullit mooy su waxtu jotee ñu sangu ba set jàpp fu mu dem ma nga ca jàkka moom day kurusam moom kay ni mu bëggee naafil loolu lu am solo loolu moom mujj mais nit lii lislaam mooy su nit amulee nga jox ko suturaal doomu aadama bu ñaawalee jëm ci yow nga rafetel jëm ci moom yëguloo ma de di wax lu baax ndax Moustapha loolu la ko yàlla tagge li mu ëppalee nit ñi du alal du dara ndax ba ko yàlla examen néeg bu mu dugg néeg bu mu dugg suñu borom tëj daraja mu tëj dégg ko rëy mu tëj nay mu tëj anaan mu tëj bi mu duggee ci néegu jikko ju rafet la ko foofu moo tax nga dégg xaajmaa wa haada làq ma haada lu mu làq laakin li fi ne laa yu maasalu man dut yemoo kenn mina tawaadu ci simplicité wa xusuuyil xal bi ak ragalu xol wa ratami ak kersa yëgu leen kersak rasulilaay moom lañ daan tëkkale kersak jigéen jigéen joo xamante ni du dem fenn ci lupp yaayam lay toog buñ la nee kersa damal ci yonti yàlla muhammad bëgg naa seydil aaji maalik te te lu muy def doo ko def waaye bëgg ko ko bëgg naa Serigne Babacar Sy mi nga xam ni maandu teem àgg na ci bu masaan a génn këram du delluwaat ñu ni ko si lu tax mu ni damay bañ a jox loxo ku koj armalanteeg ak man aw maam asu nee na mas naa génn bi mu génnee ñëw loo ndeke boobo doomam moo ci seetu di defar bopp ak loolu mu ko yërnu bu nee nii rek taf bu toogee ba yàgg yërndu xool ndax bare na bu nee nii rek tafu jërëjëf yal na yàlla barkeel mujj maam asu moo ni eh, eh. mu ne ko gaaw yow sa papa yow lay xaar yaa ngi taxaw boobu ba léegi fi li mu rawee ñépp daawul jox loxo jigéen de ma de nii ñuy jàkkaarloog femmes yi sëñ Babacar si daaw ko def ngir ragal yàlla yëguloo ne bari na. ci mag ñi seen màndute ak seen selal bari na koo xamante ni yàqule na ci jox loxo jigéen la waaw lii fàdd doomu aadama mi ngi jóge ci jigéen ak alal moo tax mag ñi daan def prétexte di yor seen kurus soo leen jibee ñu yor seen kurus mën nañu sax bañ a wir waaye bañ laa jox loxo ndax rasulilaay mësu koo def musul jox loxo waw xam nga lutax limuy wañi dafa bari wax nañ ni jox loxo ko xamanteni aram na la aram na la dafa melni nga jël pont daj ko ci bop nit ba mu dug mo gën nga jox jigen jo xamanteni man nga ko tak waw waaw amaat beneen takusaan boo xam ne maay parrain waaw As di bax di ànd ak ñoom njaay jamil bokk ci ñi ma nee na dafa am tàkkusaan bu muy dem ñaar la sax waaye daa xamul nu muy def li Oustaz Libaas moo tax mu def présentation yal na ko yàlla fay bi jaay rasulillahi sallallahu wa sallam bàyyil xel suñu borom moo la fi indi lim la digal def ko lim la tere bàyyi li tax nga kën ñëpp Moustapha moo la ko may te Moustapha ne la tax nga gën ñoo warul gën mooy digle lu baax tere lu bon xeetu rasulilaay li ñu gën a ñëpp mooy digle lu baax tere lu bon ndax ñu koy def néew na de foo fekk dëkk na la rey qulil xaq walaw ala nafsika qulil xaq walaw kaana murad loola dan man ma ngi seetuñu daara seen borom ma len gënal lepp Cheikh Hadji Abdou da na wax ni eh sama njabot ñu na ah, mu ni ay jam ngeen may jam ci jam gi ma mel nak ci la ma leen yàlla sarax ma yëgal len ni yalla la jël def fi ngepp ko yeen fi la len def waaw na la yalla lepp ak yonent bi moo tax mag ñi raw soo gënee lu baax di téré lu ban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 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجهل له وجا حيما لينزل بخسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات أن لهم أجرا حسنا ماكسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلا هل لك باخه نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا وإنا لجاهلون ما عليها سخيدا جلزا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 ngoon gi nga xam ni ngoon gu barkeel la dafa mel ni al ustaasul akbar ustaas Ibrahima Ba jot na tudd mbokk yi nga xam ni ñoo fi teew ci ay daara di ay daara yi dëkkandoo jàmm ca gën nga xam ni suñu kilifa gu baax gi di alxaaji imam Moussa Gueye mooy ki nga xam ni moo ko initié waaye li wolof di faral di wax ne mbay ci sawe yi tànk mu njëkk ko ubbee ca fa mu dëkk te mooy amoo siis tey daara yi di law ba sakkan lool ci biir ndakaaru ak li ko wër ba fa sax génn ndakaaru boo demee Europe sax am nañ fa ay daara yi dëkkandoo jàmm ci ca Washington loolu nag ab liggéey la bu am solo ànd ceeg ustaas yi nga xam ni ñoom ñoo koy wettili ci liggéey bu am solo boobu eh, pour bañ a guddal Oustaz Libaas ku ne xam na ne bis bi tey moom bisam la ndax moo tànn benn bis boo xamante ni tey moo nekk ñaareelu édition bi njëkk imaam moo defoon waxtaan bi biit moom dana ñaan yàlla mu fas yéene ko defaat incha allah kon mbokk yi fi teew yëpp rawatina di ay boromi xam-xam. ji ay asatisa ustaas tudd na leen am na ñeneen ñoo xam ne incha allahu imam Moussa Gueye na leen tuddal boppam ndax ay mbokki imam lan dende ak moom dëkkandoo ak moom fa tabarakallahu e, di sant ñëpp ku ne xam ne ni tey dafa xaw a xat ak ni jamono demee moo tax gisu leen daara yi dëkkandoo jàmm ci gën yëpp ñu teew wala daanaka ñu teew ay benn benn rek ñoo teew ndax ni jamono tedde waye budu won lolu kon kon da fay fess del su ko defé kon e, sant nan ñep gërem nan euh oustaz babakar mbay kat yi nga jital def ko mu nek mu xaddima solo itam ñi ngi lay sant di la gërem di sant mbokki sam jaay yi ndax oustaz ku ne xamna ni mi ngi dëkk sam jaay di ay mbokki bopam ku ci melni sëñ Babacar Ndiaye mii toog sama wet ak ku ci mel ni sëñ Mouhamadou Diouf Ndiaye mii toog sama wet ak sunu mbokk may di son doom bàjjan sëriñ Cheikh jiite ñoom ay bokki Saam Ndiaye lan ñëw ngir yàlla ak bis bi ak tabaarakalaw sunu mbokk mu baax mii di Mouhamadou Ndiaye mooy itam dëkk ca Saam Ndiaye ak mbokki asatise yëpp ku ci mel ni sunu xarit sunu soppe tabaarakallaahu di al oustaz Alioune Sall nga xam ni Africa set ku koy faral di seetaan daa gis ay waxtaan yu am solo yu mu fay waxtaan moom itam mi ngi nii teew fa tabaarakallaa di ko jaajëfal bu baax eh, Jamil yéen itam ñi ngeen di jaajëfal bu baax xam naa léegi rek daa ngeen dugg si bégal imaam bégal mbokk yi di si incha allahu taala imaam Baro jërëjëf eh, imaam Jonn yéen itam ñi ngi lay jaajëfal bu baax eh, sunu mbokk mi bàyyi ko ca Safina TV di sunu technicien. sëñ Samba si moom itam mi ngi nii fa tabaarakallaaw mbooleem lu fi nar a soqi ko rek dana ko jël incha allah moom itam ñu koy sant bu baax di ko gërëm eh, yaakaar naa nag waxtu wi xaw na guddi waaye ñu ngi sant mbokk yëpp rawatina mbokk yi daara yi dëkkandoo jàmba ci gën ndax ñooñu kenn amul seen fay ak ni jamono tëddee waaye lu nu woote rek ñu wuy si kon sant nañ leen ci làmmeñu imam Moussa Gueye gërëm nañ leen ci làmmeñu imam Moussa Gueye ndokkeel nañ leen massawu leen ci tabaarakallaahu yëpp kon nag jaageen jëf jaageen jëf jaageen jëf imam Moussa nag moom kenn dootu ko présenté ci ndakaaru wala bokk ci Sénégal wala ci Afrique wala ci àddina bi yëpp turu imam Moussa Gueye moom yaakaar naa law na ci àddina bi yëpp waaye mu nekk al aalim borom xam-xam waaye nag nekk boroom xam-xam boo xam itam lay kulóor xam-xam ba boo waxee ñëpp dégg la. tabaarakallahu moo nekk ci moom muy al adab te moo di yar te it nag xam am xam-xam am na solo lool waaye xam-xam bu ànd ak yar dafa am solo te loolu la ko sunu borom defal te itam sunu borom may kot mu nekk koo xam ne lu mu gàtt gàtt boo ko joxee tem donte que dix minute la wala vingt minutes la dana la ko traiteel ci fas traité boo xamante ni boo demee di nga am loo yóbbaale kon na ko ñëpp teewlu déglu ko. ci tomb bi nga xam moom la fas yéenee waxtaanee incha allah sustu fi jamono toll yaakaar dina ci xuus bu baax a baax a baax kon daal lool moo nekkoon kàddu yi eh, sas ba ñu bàyyi la nga delluwaat kàdd gi imam Moussa ñëpp teewlu ko ñëpp déglu ko fa tabaarakallaahu Oustaz Libaas nag yow ñu ngi lay sant bu baax dina la gërëm baax ci làmmiñu imam Moussa Gueye ci sa taxawaay ci daara yi dëkkandoo jàmm ca gën ci sa taxawaay ci wàllu diina ji ci sa taxawaay ci lépp ak mboolem mbokk yi xëy teew nañ fi nag. mënuñu lem ñëpp waaye kon dana leen ñëpp fa tabaarakallaahu sëñ Babacar Jaxaam xam naa imam Moussa Gueye dina ko tudd moom itam kenn la ci oustaz fa tabaarakallaahu ndax na mu demee fa tabaarakallaa kon loolu rek moo nekkoon kadd yi soo ko defee nag ñëpp teewlu bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alladi la ilaha illa huwa almutawaxidu fi aljalali bi kamalil jamal والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان وإحسان وإخلاص إلى يوم الدين بوكي دي بوكي جلتيب assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi tofal sunu nuyoo ci ginnaaw nuyoo yu tedd yu ko jiitu di di nuyu mbooloo mi fi teew yépp di ci jiital imaamu barab bi fa tabaarakallaahu imaam xaaj Babacar Mbay di rafetlu di bége lool ay kàddoom yi feese dell ak yi njàngale yal na nu yàlla subhaanahu wa taala defal dégg ak topp te nangul nu ko ci darajay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di nuyoo noonu it sunu délégué de quartier alxaaji Bachiru Mbay di ko jox it wàccuwaayam di nuyu bu baax di ziyaarit sunu oustaz bu tedd bi toog al oustaz Hadji Alioune Sall ñuy bég ci sa teewaay di rafetlu lool it say njàngale ci leer ak tegoo goo xam ni tegoo na ko ci yoon yal na nu yàlla boole nangul ñu ngi bég lool li jàkkaarlook yow di ci feeñal tamit wax dëgg yàlla ak cant yàlla ci sa teewaay ci sunu biir yal na yàlla nangul nu bi jaahi sayidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam sunu mag ju baax jiit di sunu imaam fa tabarakallahu di imaam Thierno Hamidou Dione sunu mag la sunu imaam la teewaayam it dal lool sunu xel ci sunu biir ndax daf cee boole it nekk di sunu conseiller ñuy béggee jotaayam di ko dalale sunu xel lool ak sang yu baax yi mu àndal yépp xaaju Ousseynou Baro di leen jox seen wàccuwaay di dalale sunu xel seen teewaay ci sunu biir naka noonu it sunu soppi bu baax bi di xaaji baabu jaxam asukuni yaa maskanal xayri yaa suukuuna suukuuna qumna ilayka sixaaban min tiwaawuuna sëñ Cheikh a ko defoon ca suukuun <laughs> at mu ñuy ànd suukuun moom it ba fa tabaarakallaahu saalum googale yépp Passy ñuy bari fa tànk lool wax deug yalla mu fay dalal di ñu accompagner di dépenser it lu bari ci yoon wi amna ci at mo xamni ne dañoo ñëw fekk bag bi ñu wara jall ci ci ñu ni bag bi arrêté na heure bi wacc na waye kërok mo jël ay motam yépp téléphone kilifa ga ca boppam ne ko yónnee ma bag bi léegi mu départ ma fay lépp loolu duñ ko fàtte mukk te yu mel noonu def cee def yu bari yal na yàlla boole ñu nangul ci daraja yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di bégge yi teewaayu booleeg di nuyu un grand journaliste un écrivain Haaji Mohamed Gueye journaliste bu mag bu observateur ñuy bégge sa teewaay nag di rafetlu sa xam-xam fa tabaarakallah sunul xaaliqin di ko bëgg fu ñu tollu nag di ñaan yàlla ci mbaaxam yàlla ñu boole nangul ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak bokk yu tedd yu baax yi ñu doon bégal ci woy yi ak waa dëkk ba waa Sam Ndiaye dëkku sunu directeur Haaji al Oustaz Abdoulahi njaay ca Sam Ndiaye ñu ngi bég ci teewaayu waa Sam yëpp di rafetlu tamit seen taxawaay ak euh, sunu oustaz Diop bu sunu daayira sunu naanu waaye ñu bokk ko bu daayiratul mustarshidina wal mustarshidaat oustaz ñu ngi lay bégee oustaz ñu ngi lay ziar jërëjëf Diop <laughs> barakallahu fiikum di rafetlu lool taxawaayu sunu oustaz yu baax yi xaaji Abdoulahi Ndiaye ak oustaz Libaas mii ñi fekk si tey ci taxawaay al oustaz Ba borom waagu ñaay ak feneen ak yeneen <laughs> ci taxawaay yu rafet yi oustaz Ñing sànq ma dem woo ndeysaan ma nga ca waajtaay yu màkk yàgg yooya xam naa oustaz ba bu déwénee mu dem. Ah wax ko ci ko waay. <laughs> incha allah yal ko yàlla mottali di rafetlu loolu teewaayu daa rëy dëkkandoo jàmm ca gën yi lim nga leen waa amoo siis bi doon jàng léegi alxuraan bu rafet bi suratul ka fa tabarakallahu ci njàngin mu sell mu rafet yal na yàlla wéral baati ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak waa amoo 5 ñu ngi janoog ñoom ak waa amoo 4 waaw waaw aha baax na nii amoo 4 5 6 ak daayira yi dëkkandoo jàmm ca gën bu coon sàmb ak SHS ak waa daara yi dëkkandoo jàmm ca gën sant nag ñoom ñëpp tabarakallahu ñi ngi fii ñuy béggee lool seen teewaay li Oustaz Hadja Abdoulaye Ndiaye wax dëgg la jamono moo toll ci ay waxtu yi xataayam subaarakallaahu yooyu moo tax ne daayira yi am nañu habitude yu daara yi kon di fekkente ci anam yu mel nii daara daaru salaam ñëw mu ne daara yi dëkkandoo jàmm ca gënit bu daaru salaam ak deux waay ak daara deux daara bi nga xam ne moo nekk ci deux voies yi ñépp fa tabarakallahu ñëw nañu yal na yàlla ci mbaaxam subhanahu wa taala nangul nu di bég lool it fa tabaarakallah sunu xaalixiin ci ku baax ku sell ki ñu janool sëñ Samba si sunu technicien bu baax bi ca Safina FM ak Safina TV incha allahu taala lii ak jotaay bi dina fa génn yal na nu yàlla nangul ñi bég ci sa teewaay di la ñaanal di ñaan yàlla ci mbaaxam yàlla ñu boole nangul ci daraja yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te di sargal bu baax nag ak di bége ak di màggal ak koy yëkkati mbooloo mi fi teew yépp nag koo ci xool rekk am loo jàng ci xar kanamam mu dal xel lool wax dëgg yàlla ku xool sa morom sa morom xool la lu li ngay jëkk a yëg mooy siimaahum fi wujuuhihim min athari sujud ay xarkanam yu nangu sujoodal yàlla ay ay ñu war di jàkkaarloo lañ ay xarkanam yu nangu sujoodal yàlla yuy war di jàkkaarloo lañu looloo feeñ ci jotaay bi te ñu fi toog ñëpp seen kanam yi tedd na koo ci xool te yëg ci boobu tedd nga ci nangu sujoodal yàlla fa tabaarakallah sunu xaaliqin ñiy bëgg seen xar kanam yi soo gisee ci jàkk bu ñu bëggee walla jumaa bu imaam sëlmale rek wëlbatiku côté ni jooram xool nit ñi nit ñu xool ko su ko defee nit ñi xoolante ndax leeru sujjóot di leeru sunu boroom yi nga xam ne moom la sa xarkanam gi doon jànkoonteel ci biir julli gi kenn ku ci nekk nag bu ñu nee asalaamualeykum ku ne xool sa moroom barkeeloo ci sa kanamu moroom looloo waral wërbatiku bi imaam xool nit ñi nit ñi xool ko nit ñi ku ne xoolante to tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin ndax leeru sujjóot leneen la leeru sujjóot leneen la ndax julli sujjóote ca gën a màgg sujjóot la muy firi ci biir julli mooy julli léppam ak toroxlu la taxawaay ba toroxlu la jàng ba nga jàng faatixa toroxlu la xarakaat yoo ci def toroxlu la mais ba ca ëpp doole nag mooy sujjóot ndax yow sëgg nga jàpp say wóom sàbbal yàlla subhaana rabbiyal azimi wa bihamdi siggi ni sami allahu liman hamida teg ci rabbana walakal hamdu ndànk boo dee julli yow kenn nag buñ la jiite yëpp danga ko war a wax foo dégg sami allahu liman hamida war nga ca teg rabbana walakal hamd xam nga lu tax jëmm jooju sëgg di sigg di toog naan asalaamualeykum bés bu faatoo ba ñu dugal ko ci bàmmeel gannaaw bañ ko sangee sang tëral ko mu tëdd wetu nejooram jublu xibla wàcc suuf ci kawam jal ko ah fa muy xippee fa muy xippee sunu borom سبحانه وتعالى taala سمع الله لمن allahu liman hamida maa ngi lay firndeel ni yàlla دون سانت jaamam bi ko doon sant di nga tonto ko fofu ni ko rabbana walakal hamdu yàlla yow rek ya yo sante waaw motax sujud sujjóot a gën ci julli motax bu sujud dañu bëgg mu ànd ak gepp géppuk toroxlu xam nga sujud lumuy lumuy lu muy geste bi lu muy tekki mooy yàlla day fii laa mën a yem fii laa mën a yem ndax ku dem ba la gënoon tedd ci sa xar kanam ci sa jëmm gënoon ca kawe toll nga ci place boo xam ni léegi moo gën a suufe ci sa jëmm nga ne yàlla ci màggal la ak yëkkati la ak toroxlul la fii laa mën a yem moo fu mënoon weesu weesu ko mooy allahu akbar boobu ngay roto ci sujjóot sunu responsable moral nag sëñ Moustapha yàlla na ko yàlla dolli wér moo nu ko firéelee ni nang koy teewloo mooy boo dëppee sa jë ak sa xar kanam ci suuf allahu akbar mooy yàlla gën nga fee màgge nii aha nee na noonu nga koy teewloo yàlla kat gën nga fee màgge nii hmm? su ko defee nga jegeñ yàlla was jud waxtarib kañ pour wan yalla niko bo mo mënoon wessu fofu it wessu ko kon fofu nga meuna yam nak nga niko ko gën nga fee màgge nii nag moo siggi ci sujud bo gis wat la siggee ci sujud bo gis wat la ndax bo siggi rek ben bàkkar de seto ko waaw ndax nga won yalla niko jeex nga tak ci mom fi nga meuna mu wuyo la magayam ak mbaxam ben de seto ko judduwaat nga fa tabaarakallah sunu xaalixiin moo tax barabu bu sujjóot sax ñu def ko muy barabu ñaan boo sujjóotee ba sàbbal li ngay sàbbal ñaan fa yonent bi nee na boo nee yaa rabbi yaa rabbi ci boo sàbbaalee ba noppi nee na yàlla ni la labbayka abdi wuy naa la sama jaam ci biir sujjóot de ah sal tuut laajal ma jox la moo tax ñaanu sujjóot ci ñaan yi nga xam ni sunu borom du ko delloo la bopp foofa loo fay ñaan. Ah? war a ñaan. sujjóot waaw ah. <laughs> xanaa eh, saf yàlla. saf yàlla. waaw. bii nag. ban si. bii yow kay safal yàlla rek sayoon bu mu nekk ci xaalis. <laughs> safal yalla rek sa yoon ba nek ci khalis xam nga limay faral di wax ni euh, bëgg yalla nga yëg ni bëgg nga yalla nga yek ko ci soxol ku ko yàlla may may na la xewal waye bëgg yalla limay neex neex neex neex amna luko dakk fuf xam nga lan moko dakk dàq yalla bëgg la <laughs> waaw nga ñaan nak saf yalla fofu parce que boko xese ba saf xam nga lu mu lay defal xabuul mooy lan ci olof xabuul Serigne Cheikh nu ko firi Serigne Cheikh Tidiane si mooy lan ci olof mooy lan ci wolof mooy maanaam ñi ñëwoon ca turandoom ca jamono ne ko dañoo bëgg nga ñaanal ñu yàlla defal ñu istiqaama waaw istiqaama taxaw ci yoon wi rek tegu ci bañ a wàcc mukk ba ëgsi ci yow nee na turandoom ni dënn ba yàgg ne boobu Euh, am dem na kay ma ñaanal leen bi dak ñu ne ko ban la mu ne qabul Serigne Cheikh mana moy saf yalla Serigne Cheikh firi leen ko ni moy far wu jar lo sol ñu ne mod la parce que da ngay saf yalla motax yalla ñu ko yalla defal ci darajay yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu toll nag ci jamono ak i waxtoom ak i tolluwaayam muy jamono bu raglu nekkit di tolluwaay bu raglu ndax boo ko dee misaal danga naan fii réew mi toll danga koy melale jigéen bu ëmb ba diis toll ci waxtu ma toom li ci raglu ba raglu nag mooy ban la ci ñaar yi may bëgg a wax. fii réew mi toll matu la wala saa su mat la moo tax tolluwaay bi metti ban la ci yàlla rekk xam ban la ci ban matu wala saa su mat saa te bu dee matu la te yàlla nay matu lan la nar a jur la mu ëmb bu juddoo lan la war a doon foofu tey dépassé na ñépp jaaxal na ñépp am nag wax bu gàtt bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam digaloon ku ko doon laaj ni ko ndax dooma digal lu gàtt loo xam ni dafa may jariñ àdduna ak àllaaxira ñu déglu bu baax de te du bari ndax sama xel mënul jàpp yu bari yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko aha kay laa taxdab bul mer sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu anhu nee na sëñ Babacar Sy doon leen ko firil mook sëñ Mansour ba ñuy jàng ci moom moom daawu ko firee laa taxdab bul mer mais daka daan firee laa taxdab bu ca mer fekk lu mu nar a doon ak lu mu mën a doon rek bu la ca nar mer nare fekk rek dellul gannaaw bu la ca fekk mbub lu tax am kon ku ñuy yeew gémmiñam yeew loxoom yeew tànkam tëj ko ci néeg mooy ku mer ku mer dañoo wara yeew sa gémmiñ ku mer dañoo war a yeew say loxo yeew say tànk ndax ku mer loo wax baaxatul loo dox baaxatul te loo def baaxatul moo tax yonent bi wax ko wax bu gàtt bu ne ko laa tax dab lu mu mën a doon rek bu la ca mer fekk bu la mer naree fekk ba fekk la ca ndax ëpp na la doole ci biir mer mi bul ci taxaw di faji li nga nar a faji fajul ba noppi soog a faji li nga war a faji parce que mer mi ci yow moo gën a bon moo gën a grave li nga bëgg a faji moo tax boo ci bëggee faji ay musiba rek ngay def ay musiba rek ngay def moo tax mer mi ci yow moo gën a bon li nga li la merloo ba nga bëgg ko faji kon neel rëmm dal faj sa bopp ba noppi lo faje ci bir mer xam nga su euh ki faj kan lay doon hmm? ki faj su boba kan lay doon moy le borom xam je crains cet animal déguisé en homme Moi la ragal lol rap ñu solal yaramu nit ma defe ni nit la ndakati rap la hmm? motax mer bu lo noté bu lo noté tejul watul bul genn bul wax bul def parce que nekato nit lo def rek musiba lay doon ndax lu la mer moo jëkk a bon ci nit mooy xol bu tàng xol bu tàng moom la Serigne Cheikh Tidiane si waxoon radiyallahu anhu ne yàlla na nu yàlla musal ci xol yu sotteeku cim réew ndax xol yu sotteeku cim réew day taalum réew xol yu sotteeku day taal réew te xol buy tàng di bax buy bax di sotteeku. te waaw. kon ah, xam te ñàkku yaram yaram bu dëkk ci ñàq te borom du sangu la ñu ne mooy ënnal yëre. yaram bu dëkk ci ñaq te borom du sangu mooy ënnal yére waaye xol bu dëkkit ci ñaq xol buy dëkk ci ñaq ndax tàng ga muy faral di tàng mooy ënnal jikko ñaqu xol mooy ënnal jikko te ku sa jikko ënn yàlla dàq la hmm? waaw bokkatoo ci ñuy defar te it am ñu yàlla joxañ ni bëgguma leen yal yàlla musal sa ñooña yàlla dafa am ñu mu joxal ni bëgguma leen yal yàlla musal ca ñooñu am ñu mu joxoñal boppam nit ñii rek laa sopp bëgg naa leen yal yàlla boole ca ñooñu ñi yàlla bañ yal na nu yàlla musal bokk na ca yàqkat yàlla waxal boppam ni inna allaha laa yuhibbul mufsidin moo leen joxe ni yàqkat yii de yàlla nee na bëgguma leen bañ naa leen yal nañu ci yàlla musal amaat meneen mbooloo mu muy joxeñ wax lan inna allaha te mooy tooñkat yi yàlla nee na bëgguma leen laa yuhibbu zalimin maa bañ tooñkat yi yal nañu musal am ñu mu joxoñ ni ñooñu sopp naa leen ba jël naa sama yërmande soriwu leen dama leen jagañal sama yërmande mooy ñi nga xam ne ak luy mën a am ñoom tànn nañu di rafetal bañ di ñaawal inna allah yuhibbul muhsinin maa sopp rafetalkat maa sopp rafetalkat gis nga jamono nak bu deme ba tollu fo xamni ñu déglu bu baax de la mam xaaju malik alayhi ridal malik waxoon ni deug ak neen dañoo tollu ci jamono bo xamni dañ fay xex neen ray deug waaye bañ moom neen ñu xam ni moo rëy dëgg bu ko utalee bàmmeel ñu xam ne bàmmeelu dëgg ngi mu bëgg nag benn trace du ci am mu lakk ko ba mu ko lakkee ba mu xëm mu wol ko def ko sunguf ba mu ko wolee def ko sunguf mu jàmb ko def ko daa comme encre di ci bind ay xalaatam nag encre bi ngay gis muy mbind mi dëgg la mais xalaat ba fenn la ci boobu jamono lañu ñu nag hmm? foofu la ñu toll li ngay gis ñu koy bind ni encre dëgg ngay janool daaji mais la ëmb ca biir wax ja ay fenn la loola ku la ca mën a musal ku yàlla Hmm? jamono bu tolloo foofu kan moo la ca mën a musal ku yàlla kon xam nga lu ñu desee ñun fi ñu nekk ci yi waxtu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun hmm? waaw moom dong ñu dese nag inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te loolu foo koy wax dañuy jàpp ne musiba la dañuy defe ni ak dee de kenn du ko wax ci dee boo tolloo ci xat-xat wax ko boo tolloo ci jaaxle wax ko boo tolloo ci tiis wax ko boo réerlee dara wax ko boo nekkee ci mettit wax ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xam nga lu tax mbir mbir lu mu rëy rëy rëy rëy rëy buy ëgsi ci sa kaw wut si la yàlla na la fekk rek yàlla uuf la buy yëgsi ci kanamu yàlla di tuuti lu mu rëy bu rëy buy ëgsi di tuuti allahu akbar ah waaw kon nañu dem uufu ji ci yàlla nañu dem uufu ji ci yàlla la sëriñ Cheikh waxoon radiyallahu anhu ni boppu lislaam fu mu mettee nee na bokk ca ña ña ko sabab ñii may bëgg wax <coughs> bokk na ca ñaar ñii may bëgg a wax nga xam ne fu lislaam feebare ñoo fa ne mooy ci tànn di waxtaane xam-xam ni dafay yeete te xam-xamam àggu ca wuute lool ak sunu ustaas yu baax yi toog ñooñu du ñu yéen yéen lu ngeen wax leer na ak ki takku ñi damay xeexal dëgg jar ko mu jaral ko di xulool dëgg di ko xeexal te njubam àggu ca hmm? waxatal lolu ki takku ni damay xexal deug diko xulol hmm. te se njub aggu ca hmm way yalla la kenn munul nax sama wayjur non na ma bo gisee nit ñi son mu ne ma xam nga lu leen sonal nit ñi xam nga lu leen sonal ma ne ko déedéet mu ne ma bëgg njub lang yàlla rek <laughs> nee moy indi coono ji bëgg ñub la ng yalla <laughs> la ilaha illallah hmm? moo sonal nit ñi di waaye nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox nañu solution te solution bi mooy waxam jamu wax tàggatoo ko xaaju Seck jërëjëf oustaz papam ku baax la Cheikh Tidiane Seck sëñ kër see ko yar mook sëñ Pape Malick ñoo yaroondoo bu joge fi jàngi ci réewi arab ba baye abdul Aziz Al Amine yobuko mu ñëw di borom xam-xam bu fess del na waye jamono day dem dem dem ba tollu luñ ci fo xamni le serigne Omar gey doon wax yalla ko yàlla dolli leer serigne Omar gey mo doon ronu tantu Baye Jamil yi ah sa mam la ndeysaan daan wax waxam bu gatt boobu le naan ñi xam ñi xam waxuñu te ñiy wax xamuñu waaw bu ñu tolloo foofu fu ñu jëm hmm? Hmm. bu ñu tolloo ci jamono boo xam ne ñi xam ñépp dañoo tànn dencal yàlla seen bopp hmm. ñi xamul di wax fu jamono jëm yonent bi nag waxoon na alayhi salaatu wasalaam ni buur boo gis mu ne ceebam yàlla ca kanamu mbooloo mu mu jiite boo gis yonent bi nee na yàlla la ca kanamu mbooloo ma mu jiite ñu ne ko loolooy lan mu ni réew mu ne nanu mel nee na buur bu ne mel na leen yàlla di jox hmm? ndax buur bàyyi ceebam yàlla ci seen kaw waaw mu ni kon lii safarata mooy bul xas sa buur mu ne balaa ngaa xas sa buur tëjul yow kenn def yàlla muy sa wéttal nga laaj sa bopp mbaa sa jikko bokkul ci li tax yàlla nattoo réew mi buur bi ne malam déet mbaa sa jikko bokku ci nga nga nga tiit ci nga tiit sa diggante ak yàlla de bul xas buur bi de da ngay tiit sa diggante yàlla de waa mbaa sama jikko bokkul ci li tax yàlla nattoo ñu buur bu ne mel ndax yonent bi nee na buur boo gis ceebam yàlla ci réew soo ko defee te honnête boo yëgee ci sa bopp jikko yoo xam ne du noonu defal muhasabatu nafs te mooy nga auditer sa bopp ah mu ngoog xaasibu anfusakum defal muhaasabatu nafs te mooy nga auditer sa bopp nee na soo ko defee keneen ku meloon ni yow def ko keneen ku meloon ni yow def ko keneen ku meloon ni yow def bu ko ñépp defandoo ba kenn ku ci nekk faj sa bopp ba teqali ko koy mala jikkoy sang bi yàlla bëgg nag mu nekk ci yow des ci yow nee na bu ñëpp melandoon noonu bu fekkoon ni saay-saay moo leen jiite day daw kenn du ko dàq ndax saay-saay ñemewul ku jub saay jub <laughs> hmm? waaw waaw sama baaxul buur yàlla aw ma feneen wallaay amuñu feneen amuñu feneen bi wallaay du dëgg euh, jaama ngi jaamu jaama ngi way boromam jaama ngi jaamu jaama ngi way li ma yëg xam koo xam gu li ci man la su ma baaxul buur yàlla aw feneen xaw nag waaye xam nga yow na nga may def jaama ngi tey mu tooñ yaa not li mu jaamu man réccu naa tuubi ruubi tey lu ma war la sukk naa la sa gombaanoo naa di la tuubal yàlla yow mi amal sama yeddi xol sukk naa tàllal lay loxo yaa salaamu kenn mënul yay mënal say jaam wala soobe duñu man la sa gombaanu fenn di jooytu kuñ fi yaakaar mawlaaya yaay ki mu yaakaar rus na ma toog feneen di joytu di jaamu yaay léppi ñépp tey booroom kumu ak fu mu mën doon ku la daj dal ci dundam teyit ca deem lamb daj ndem yoon njofru amul ku la daj dal la way buuram nangul nu salaam yàlla maya ngay may yu rëy lu jiitu nu woo la maya it joppi yiw nu ñaan cant yaa ngi di ñeel la lépp yooga walaka alhamdu ya rahmaanu rahiimu jaamani jaamu jaawakay way borom yow sori woo làq say jaam ndeke yaa ngi ku ni waññete jàkkaarlook yow dëgg gaa ngi li fi di neeni neen giñ ku nandul dina neenal ak dundam xañ ko salaam yàlla ku mu doon ak fu mu doon ak nu lu mu mën doon te yàlla génn yàlla ku mu doon mu doon ak nu mu doon ak lu mu man doon te ku mu doon ak fu mu doon nu mu doon ak lu mu man doon te yàlla génn yàlla ku mu doon ak fu mu doon ku mu doon bu dee ku ya lu ko mooy mooy la del see naa ya salaamu jaamu ni jaamu jaama Mani, du kenn du fenn du lenn yalla rek yalla rek ëpp nga jaam yaakaar la yow nga di neenal kula ñaan war na jaam ba ñaan na kuloo kuy tam xam luy woote salaam jaama ngi jaamu waaye njaddir yi mooy njalbeenu gaaf genu nu not sëkkatal nu ñuy soobu ci xeeti njaaxum nga di aar tey musal di ballu di balle jaru jërëjëfal te jërëjëf salaam jaama ngi jaamu kon nanu delloo mbàttoom la ndaa nu naane ku ni lislaam ni yàlla geesu li ahmed mi ñu nandal jaaraama ñal na muhammad sang baayu zeyna bokkal soomam jaama gi jaamu jaama kay way baraamam moo ni fi dese de moo nu te amee jàmm barakallahu amin mani nañ leen dellu ci keppaaru yonent bi waxoon na ni bàyyi naa leen ak ñaar yoo xam ni féeg wàccu leen ko yéen a ngi ci du ngeen réer du ngeen jaaxle du ngeen sànku mooy téere yàlla bii di alquranul karim ak sama sunna sii sëñ Babacar si nag am na lu mu waxoon radiyallahu taala neewoon na eh, ku wàcc dëgg tabbi fitna réew mi nañu seetaat suñu bopp. di gërëm ñëpp rawatina waa quartier bi góor jigéen mag ak ndaw Serigne Papa Lo moom itam nekku fi waaye xelam mépp a ngi fi mboolam liñ doon xewloo yëpp ca këram googu lañu ko doon defaree fa tabaarakallah ak rakkam ju baax bii di Maodo euh, Lo moom itam ñu ngi koy gërëm ak taxawaay yi yëpp. kenn ku ci nekk rek sa yéene xam nañ ko yàlla yàlla mottali bi jaahi saydu wujud sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf